maa ngi nuyu askan wi yëpp di jéem a waxtaan ak yéen ci téere bu bees bi nga xam ni génne nañ ko ci euh, diggante aji sar ak Ousmane Sonko ma tudde ko mbir mi mbir mi nag téere bu soo ko génn la euh, dañ leen ko bëggoon euh, faram fàcceel lépp askan wi mën cee jot euh, ba ku ne xam lu mu tëdde euh, am na loolu ni bind naa ko ci euh, mooy seen diggante nu mu sookee ak lu ci xew lépp ci ay tolof tolof ak lu ci ak nu mu di demee ba niñ ko àttee premier juin bi juin bi passé ak li ci topp lépp livre bi nag ñaari partie la ñaari pàcc la pàcc benn bi mooy gëstu yi ma ci def pour fàttali nit ñi mbir mi watax wan leen ni mu doxe wan leen ni mu tëdde ak nemmeeku ci ay yooyu nii eh, soxal na réew mi soxal na askan wi soxlal na jàmmi réew mi ak tolof tolof yi ci am yëpp. beneen ñaareelu pàcc bi nag eh, dafa am la nga xam ni waxtaan la wu yaatu eh, wa nga xam ni que kii di Ndeye Mbiliki di Adji Raby yoon yàlla dogal na nit mosu koo déglu. Euh, ba mu wax li nekk ci xolam wala ñu wax li daal mu bicc li nekk ci biiram euh, loolu nag euh, am na waxtaan wu yaatu wu ci am ba nga xam ne ni wax na ay jaar-jaaram ba mu juddoo ak fi mu jaar yëpp ak mbir mi ni mu dikkee ak nu mu ko dundee ak lu ci topp lépp loolu tamit dinañ leen ko baaxee ci waxtaan wi ñu bëgg a waxtaan ak yéen ak yeneen pàcc ya nga xam ni def nañ ko ci lépp nag liy sabab bi mooy téere bi li ci nekk. te ñëpp gis ni ko soxal na Sénégal soxal na àddina soxal na képp ka nga xam ne yaa ngi yeewoo ci réew mi ak ku nekku bitim réew sax euh, lii nag jéego bu njëkk la ndax te dañ koy faram-fàcce ci wolof ñàkkul xëy na bu ko laajee euh, am na yeneen kàllaama réew mi ya nga xam ni que mën nañ leen koo baaxee tamit ñu mën cee gën a jot ndax mu gën a wasaaroo bitim réew bari nañu ko soxla am livre bi ñu ngi ko génnee ci farance waaye euh, anglais yi ngi koy móol. Euh, ngir tamit ñi làkk-làkku engle di ci mën a jot euh, am na tamit ñu nga xam ne dañoo bëgg euh, làkk arab am na ñuñ ci feeñu ba ñu commencé nañu liggéey boobu pour que ñi nga xam ne wax arab tamit mën cee jot loolu moo nekkoon sababu jataay bi. mbir mi diggante Adji Raby Sarr soxna su tudd Adji kilifa politique bu jiite parti Pastef ñu koy wax Ousmane Sonko la dox seen diggante euh, mi ngi xew euh, defe naa ni guddik 2 ba 3 février 2021 ci Ndakaaru ci salon de massage bu ñuy wax bu Beauty bi loolu amee Adji Raby Sarr jàpp euh, tuumaal Ousmane Sonko ni da ko doon jéem a sàkku ci lu ko neexut mu dem gendarmerie daal di fay déposer plainte gendarmerie Colobane la muy tudde section de recherche bi nga xamee ni que déposé na plainte euh, ci saase euh, procureur de la république Serigne Bassirou Gueye jéem koo xamal ay kilifaam yëgal leen ko ndaxte ku xam mbirum tribunal ak euh, réew ni muy doxee bu amee yenn personnalité yi nga xam ne dañoo am ay tolof tolof wala dañoo am loolu nii seen loxoo ngi ci wala tudd nañ leen ci Euh, police ak euh, gendarmerie wala ak procureur yi dañuy yéegal information bi signaale ko seeni kilifa booba nag euh, bi ko Serigne Bassirou Gueye procureur de Dakar doon def àllarba 3 février 2021 la ko def fekk booba gouvernement bi mu ngi nekk réunion conseil des ministres ndaxte jamonoy Covid la ñu nekkoon gouvernement bi mu ngi woon a daje palais ba di réunion ku nekk da ngay nekk sa bureau wala nga nekk barab ba nga nekk. yor ay caméra ñu def li ñuy def vidéo conférence conseil des ministres bi euh, ministre de la justice booba jamono yooyu mi ngi tudd Malick Sall bi mu ko jotee daa yónnee message bi da ko daal di transféré président Macky Sall ñi nga xamee doon nañu seetaan conseil des ministres sax gis nañu benn waxtu Macky Sall mel ni ku tiit euh, xool téléphone am euh, daal di kanamam xaw a ñagas. mu continuer réunion bi bi réunion bi jeexee daa daal di woo Malick sàll ni ko li ma yónnee lan la kooku daal di ñëw ci moom mu ni ko lii lan la mu ni ko ah waaw président day lii procureur ma ko jox euh, woo naa ko sànq sax bala maa daal egsi ci yow euh, di ko laaj nu mu demee mu ni ma enquête bi ubbi nañ ko euh, ki nga xam ni mooy xale bi jigéen bi porte plainte mi ngi gendarmerie ak ay waajuram ñu koy déglu Euh, Macky Sall président de la république dal di xaw a xëq euh, Malick Sall wax ko ni ko waxoon naa yu mel ni ngeen bàyyi ko euh, ndax affaire yooyu teg leen ko ci suuf Macky Sall dafa xalaatoon ni que mbir mu jiitu lii la woon ndax dafa amoon jam at yi ko ci ginnaaw ay weer ca ginnaaw tolof tolof yu mel nii yu daloon Ousmane Sonko yu ko xaw a nuru ba mu ci amee ñu daal di koy teggi tànk plainte amul woon gouvernement bi. classé ko sans suite la ñu koy tuddee euh, ministre de la justice wax ko ni ko ah président de li jotewul ak lu jëkk la dara lii lu bees la te ki ko euh, porte plainte sax ba nga sax ba ni ñu koy déglu euh, noonu la ko Malick Sall waxanteeg moom après ni président nag lu ci xew dinaa la ko wax ñu mën a xool nuñ ciy taxawee man ci ëllëg sa di 4 février 2021 ci la ma ku nekk. police léeg-léeg ñuy faral di diisoo ci yu bari mu yëgal ma mbir mi bi ma ko yëgalee ndax ginnaaw bi nag loolu lu rëy la euh, li ma jëkk a def mooy euh, woo président Macky Sall wax ko ni ko li ma yëg ndax yëgu ko euh, wax mu ni ma lan affaire Ousmane Sonko bi ma ni ko waaw mu ni ma ñëwal ñu waxtaan ci bi ma demee bureau ñu toog. Euh, bi ma dikkee mu ni ma lii nu mu demee ma ne ko li ma ci jot a xam de moo di euh, lu mel ni doon nañ ko romandaat euh, ay fan ci ginnaaw wala ay semaine ci ginnaaw naan kat Ousmane Sonko am na jote yum jote ak benn xale bu jigéen buy liggéey ci salon de massage waaye wax jooju kenn mosu ko fullaal waaye tey nag mel na ni bërkaati démb am na jote bu ñu jote ba xale bu jigéen bi dem na porte plainte li ma ci jot a dégg nag yaakaar naa ni que tuuma ji rëy na euh, mu daal di woo euh, Malick Sall ministre de ni ko yéen seen enquête bi fu mu toll Malick Sall ni ko waaw déglu nañu xale ba mu pare déglu nañu tamit yenn témoins yi nga xam ne am nañ ci waaye président mbir mi garaaw na après bi ma xeeg loolu ma président daal di ko ci man ni ma waaw mais ma jàmbal loolu lan lañ maa def pour dimbali ko ma ne ko dimbali kan mu ni ma. xanaa Ousmane Sonko ma ne ko déet président Ousmane Sonko la dimbali am xale bu jëm la ñuy dimbali mun ma déet ma jàmbal li li lu ñuy café laaj boobu président wax sax ni ku ñuy jàppale euh, bi ko ko Macky euh, bi ko ko El Hadj Malick Sall ministre de la justice waxee loolu la ko jëkk a tontu ni ko waaw lu ñu mën a def pour dimbali ko ministre de la justice ni ko ah président de fii moom dimbale fi dina jafe yaakaaruma sax mën nañ fee dimbali kenn ndaxte ñaari sénégalais yi jote la kenn ki porte plainte keneen ki kon nag ñun duñu mën lu dul maandu ci xool lu yoon di wax bi ma waxee loolu tamit lu mel noonu laa ko tontu mu ni ma waaw sawaay moom lan la mën a sàggane bay dem ci barab yu mel nii euh, waaye nag euh, li ma ci metti rek euh, mooy daañ ma ci tuumaal tuumaal ci sama njaboot te xam nga ni man daal sama yoon new ci laalewu ma ci ma ne ko waaw président di loolu loo xam naan du ñàkk euh, man de fas yéenewuma cee wax ci sama journal waaye nag euh, bu fekkee mbir mi am na yaakaaruma daal dina mën a nëbbu ba faaw euh, dina génn bu génnee nag yaakaar naa ni coow li dina bari te nañ la ci tuumaal waaye bu ci amee xëy na tànqam lu moo moo ci sës ba xool ni nu wànneen di mujjee ki bëtam waaye dëgg fu mu jaar dina mujj leer Euh, Ousmane Sonko da doon jiite syndicat ñiy liggéey impôt ak domaine nekkoon leader syndical bu mag euh, doon nañ ko dégg ci mbirum syndicat euh, mu koy jiite ba ay jàppante ak responsable lu état bi responsable administration impôt et domaine doon na tar waaye jamono yooyu xaw ma ko woon maa ngi ko xam. wax dëgg yàlla bi ñu jógee daje 6 décembre 2013 la ca ngoon ñoo ngi daje woon hôtel King Fahd ci baar bi moom moom ma oo woon ni ma dafa bëgg a gis euh, ma ni ko ba jox ko rendez-vous ñu daje foofu bi mu ñëwee mi ngi ànd ak ku ñuy wax Ismaïla Ba Ismaïla Ba kuy fàttaliku partenaire am la ñoom ñu bokk société Atlas ak Mercalex mooy société yi nga xam ni dinañ leen tudd ci affaire euh, titre foncier 1451 bu Tëngéej boobu ñu doon wax affaire 94 milliards ñoom ñaar ay associé lañ ci bi ñu àndee egg si fekk ma fa mu daal di ni Ismaïla Ba may ñu ñu waxtaan Ismaïla daal di dem génn toog man ak moom ñu toog di waxtaan euh, ci la ñu xamante euh, gindikonte mu daal di commencé waxtaan bi sax xaw naa ñagas ndaxte dafa tàmbali ci waxtaan wi naan ma waaw xam naa affaire tey bu njaay Euh, nu mu demee ba ñu jël ay nit sax yóbbu leen ci fi ñu koy téyee pour ñu waxtaan ak moom bëgg koo signé loo benn protocole d' accord mais man d' accord ma ci loolu euh, dañoo bëgg a nasaxal droit yi tey bu jaay dañ koo bëgg a teg la xam ne teguwul te man bu bi dina tukki ndax bari naa xam naa lu ma bari na lu ma xam te am na ay kilifa ya nga xam ne ni biir bi bu jëmee kaw duñ ci set ma ne ko hey yaa sàkku gis ma tey la ñu mas a gisee. kon nag euh, duma la may nga ñëw toog ak man di wax wax ja nga xam ne da nga koy yëkkati wala di ma jéem a menacer wala di jéem a am looy wax euh, ki nga xamee ni naan yóbbu nañ ko ci lieu de détention bu waxtaan ak tey bu njaay ba tey bu njaay taxaw pour signer dara nga bañ ko man mii la te li ma ciy dugal du sama coobare bopp sàkkuwuma ko wutuma ko xarit ak wóllëre tey bu njaay moo ñëw ci man jàpp ni ko kat Euh, xaritam wala wala nekk nañ ci guta kon nag na jéem a fef ay pexe ya nga xam dina ko ci génne ba ma ko waxee dama ànd daf ma yóbbu ci soxna tay bu njaay ni ko kii yaakaar ni war nañ cee mën a dimbali pour waxtaan ak kilifa yi ngir ñu yeewanal nu mën a bàyyee tay bu njaay euh, bi nga xamee ne loolu xew na euh, soxna tay bu njaay ni kun ci dimbali nu jël ñun sax wax naag tay bu wax naag xaritam bi te xaritam bi lu mu ñu dugal ñu ànd ci Euh, pare nañu pour bu amee lu mu war a fay na ko fay am jàmm dellu ci njabootam ci laa waxtaan waxtaanee ci mbir moomu ak président Macky Sall waxtaan ci ak ministre de la justice mi Aminata Touré ak euh, adjoint procureur spécial ba jamono jooju mu nekkoon Antoine Diop. Euh, Mimi Touré sax waxtaanuma ak moom directement ci mbir mi président Macky Sall laa waxal président Macky Sall wax ak Mimi Touré Mimi Touré woo ma ni ma président nee na ma affaire tey bu njaay da nga am tànk yoo ciy dox. ma wax ko lii sabab bi ci la joxe instruction Antoine Diome mu nekkoon adjoint au procureur spécial kooku joppook man ni ma kon man ngaa dem section de recherche nga gisanteeg Tahibou Ndiaye euh, bi ma àggee foofu ci bureau commandant section de recherche la ñu génnee Tahibou Ndiaye cellule ba mu nekkoon ñu indi ko ci bureau bi commandant bi ñu toog ma xamal ko Ousmane Sonko ni ko lii la deme ma ne ko nag bu dee nag yow da ngaa taxaw ci sànq suba ji da am looy wax wala looy opposé wu la neex nga wax duma la ko tere. waaye na nga xam nag aussi man nit pare naa pour la ca nekk lépp ma wax ko ndax tamit aw ma ci benn intérêt dul dimbali nit moo ma ci dugal euh, ba li nga xamante tey bu njaay proposé na ko di ko signé sax te nguur gi nanguloon ko ko mën naa ko génne di ko bàcc ci biti kon ma ci lu ma ci aw ma ma ciy ragal bi wax ci demee noonu nag Ousmane Sonko ko di dellu si commencé daal di seddal wax ci daal di ni ma noo demeewul noonu sax mais dama bëgg rek ñu giddi koon te ndax xam naa sa taxawaay ci réew mi xam naa wax waxam wax ju rafet ci lañu ñu commencé di waxtaan nag mu euh, won ma ni ma daal moom mi ngi yëngatu ci mbir mi day jàppale Tahibou bëggul bu dem kaso ndaxte bu ku am euh, cër la ci moom te bari nañu mu dimbali ci réew mi wala bari na la nga xam mu koy taxaw ci biir réew mi ci biir waxtaan woowu nag euh, ci la ma Ousmane Sonko laaj ni ma moom daal doon def syndicat waaye léegi yore jiiteetul syndicat bi xelam daa nekk ci def politique bi ma waxee xelam dafa nekk ci def politique. ma ne ko ah naam loolu de moom am nga ci sañ-sañ mu ne ma loo may xelal pour ma def politique ma ne ko ah bu dee da nga bëgg a def politique nee nga da nga bëgg a jàmparloog euh, Macky li ma gis fi mu toll nii mooy ku mel ni Idriss Seck nga dem ci moom ndax booba bu ñuy fàttaliku Idriss Seck réew mi doon na soog a jóge ci gouvernement bi partem taqali woon na ko ak Macky Sall euh, ba euh, Idriss Seck noo nekk opposition bi jamono yooyu. Euh, booy kuy fàttaliku tamit jamono yooyu la ñoom Omar Gueye euh, nekkoon ci gouvernement bi bi Idrissa Seck génne ñoom ñoo bañ a génn toog ak des ak Macky Sall mu ni ma déet man Idrissa Seck doo mën a def ak moom ndax moom daa yëg boppam moom faalewul kenn euh, gisee naa moom ñaari yoon waaye daal bi ma ci génnee xam naa ne kii mun maa def ma ne ko bu dee daal da nga bëgg a nekk opposant te mënoo ànd ak Idrissa Seck li ma fi gis mooy nga def sa parti politique mu ma ah bon ma ne ko waaw mu parti politique boobu nu muy tëddee ma ne ko bu fekkee daal yow ndaw nga te ni ma la gisee te dañoo nekk société ba nga xamee ni li ci ëpp boo tëlee li mu waa Sénégal téeméer bu nekk juróom benn fukki ak juróom ay xale yi nga xam ne amaguñu fanweeri at la tey boo dikkee nga def politique euh, ak euh, jomli ci xale yi ñi nga xam ne dañoo ñàkk liggéey dañoo am ay diplôme wala dañoo boole eh, li daal seen mbir sotteegul wala ñu am ay yenn sentiment li ndaw bu nekk di am eh, def naa ne di ci mën a am ndaw ji bu eh, ni ma waaw loolu de xalaatoon naa ko wax dëgg yàlla parce que lu mel noonu am na ñu ma ci bëgg a waxtaanal pour ñu xool ba xam nan la ñuy def ci laa tàqali ko ak moom Euh, loolu décembre la teguñu ci weer Ousmane ko taxawal parti politique PASTEF euh, taxul nag booba depuis lool ñuy gisee wala ñuy wax waaye nag am na kóllëre ba nga xamee ne xaritam mën naa ne doomu ndeyam la sax ku ko jege di Waly Diouf Bodian nekk inspecteur des impôts euh, Waly bu Bodian dafa nekk nga xamee ni yàlla daf ñu boole woon ci liggéey bi nga xam ne daf koy liggéey. Euh, ci inspecteur des impôts dafa dafa nekkoon jamono yi ma koy xam mu ngi nekkoon ci euh, bureau bu Ngor Almadi euh, jamono yooyu moo doon inspecteur des impôts ba nga xam ne doon naa njëkkoonteeg moom ci lu bari ci ay dossiers yoo xam ne dafa concerné journal Le Quotidien wala sa ay dossiers personnels yoo xam ne ay dossiers impôt la. Waly bu masaan toog ak moom moom na maa ngi fàttali ni parti socialiste la bokkoon jamono yooyu bi laataa ñuy. taxawal Pastef moom euh, ci xale yi nga Ousmane euh, euh, Tanor Dieng doon na sukkandiku ci ñoom wala nekkoon na daal seen mentor ci la bokk jamono yooyu Wally di mititlu lool sax li dal Ousmane Sonko ndaxte maa ngi fàttali ni jamono yooyu dañ cee tegub diir rek Ousmane Sonko ñu ràjjee ko ci fonction publique Euh, ndax dañ ko waxoon ni dafa am ay secret wala ay information yoo xam ne waru ko woon a génne euh, ci sukkandiku ci def politique euh, Wally donc da doon déggoo da doon diisoog man di waxtaan ak man maa ngi fàttaliku sax benn bis bi ñu sanctionné Ousmane ko ci ëllëg sa maa ngi toog ak moom ay ranko sax xaw naa wadd naan ma man dey li may ñaan rek grand yàlla na ko yàlla may mu nekk député ndax mën a am lu mu yore njabootam wax boobu ba léegi duma ko fàtte euh, la nga xam ne la tuuse woon na ma euh, yàlla dogal na soo ko bi mu demee ci élection yi ca topp euh, defoon nañ ko député faloon nañ ko kon ñaanu waali waali kooku mujj na àntu waali donc laa doon faral dégganteel ci lu bari bi mbir mi xewee wala tolof tolofi doon na jokkoog man ci lu bari ci ñuy waxtaan mu naan ma waaw grand daal gisuma képp kenn ka nga xam ni war na laa mën a jiitu ci dox jàmm wala jéem a fexe lu nga xam indi jàmm ci réew mi ndaxte yow li tubaab di wax naan tu bien placé pour le fair waaye nag bari musuma sant directement ni ma defal nangam waaye ci biir waxtaan doon nañ ko kafe may wax loolu su ko defee ci kaw kafit ma naan ko loolu day jafe ndax sa waa ji moom kenn xamul ay mbiram te neexut noonu moo nekkoon sama lëkkaloo wala sama jote ak Ousmane Sonko di ko jaarale ci euh, xaritam boobu di Waly Diouf Bodian euh, waaye bi mbirum meek Adji Sarr demee ba takkardaase xëy na réew mi lëmbee ba na ñoom ñii seen xel dafa nekkoon ci euh, jéem a dox ay tànk jàmm wala jéem a jubale maa ngi ci fàttaliku benn ministre bu Ablaye wat ba nga xamee ni dafa am kóllëre ak jege ñaale ak benn kilifa bu jigéen bu nekk Pastef kooku ñëw du benn du ñaar seet si ma ñu ma kat man dama bëggoon ñu waxtaan xool naka lañu mën a defee euh, diggante Ousmane Sonko ak président Macky Sall ñu mën a gisee waxtaan te xam naa ne yow boo ko doxee dina mën a sotti euh, loolu ci euh, ay semaine wala weer yu tuuti bi événement bi amee la defe naa sax may ko bu baax ci ay booru avril deux mille vingt et un la nit kooku doxoon tànk yooyu. bi mu ñëwee wax ma ko ma ne ko ah waaw loolu nañ ko seet ba xam waaye nag luy mbir muy jafe la euh, te nag lu mel noonu bala ma cee jéem a def dara damay wóor ni euh, ki nga xam ni mooy ndey mbile gi di Ousmane Sonko sàkku na ko wala bëgg na ko kon nag daa bëgg nga dellu ci moom nga wax ak moom ba xool ba xam loolu ab sabab la te mu jox ma firnde ni moom bëgg na ko mu dem delsi wax ma ni ma. Djibril Gueye Ndiaye di ñu jaay ci Ousmane Sonko defe naa di chef de protocole am dina ñëw seet si ma kon loolu moo lay wan ni firnde ni kon dañ koo yebal ma ne ko kon baax na ma jox ko rendez-vous ba jotul ba rendez ba jotee mu woo ma ne ma Djibril Gueye du mën a ñëw euh, ndax dafa am mission bu ñu ko yebal bu urgent ma ne ko kon baax na heure bu paree rek nga wax ma ko euh, ginnaaw bi euh, kooku dellusiwaat ni ma waaw man dama bëggoon sax nga gisante ak Ousmane Sonko. Euh, ma ne ko waaw man de sama buntu kër ubbeeku nu ku bëgg a ñëw ne ñëw man noonu nañ gisee feneen ma ne ko déet man gisee feneen moom du ko def moom daal bu dee moom ma soxla naa fekk si fi ma dëkk fi may recevoir sa ñëpp ma toog fekk moom wax ak moom bu dee mbir mi soxal na ko boobu Ousmane Sonko mosut a ñëw seet si ma terewul nag bari nañu doon jéem a dox ay tànk am na ci ginnaaw loolu euh, bi mbir mi gën a takkaar naase euh, am na si ka nga xamee ni que Casamance la jóge woon dama joxewuma turam dëgg dëgg nag dama koy tuddee Émile ndax euh, xam naa ni que bu turam feeñoon xëy ñàkkul ñàkkul ginnaaw dafa jóge ci wala jege ay waa MFDC wala jóge ci euh, ñu mel noonu ñu jege ñu leen jege yaakaar naa ne boo mutu mën nañoo dal ci kaw moo tax daal pour euh, sàmm sécurité am du ma tudd turam naa ko tuddee Émile rek Émile moomu ñëw seet si ma ni ma man kat dama soxla woon waxtaan ak yow pour luy indi jàmm ci réew mi ndaxte kat. ñi nga xam ne ñoo nekk di ñaanal Ousmane Sonko nekk bois sacré am na ay sarax yu ñu digle su ma sañoon ñu def ko euh, ngir Sénégal am jàmm ngir réew mi jàmm delsi fi te loolu sarax yooyu président moo ko war a def jotoon naa cee waxtaan nag diw nga xam ne jege na président euh, du benn du ñaar euh, ak ñaari nit sax tudd na ma ñaari kilifa yi nga xam ne waxtaan noonu ak ñoom ci loolu waaye ñu mujj ñu ko jottali président wala àggul ci président. yow nag nit wax na ma ni ma daal bu ma ñëwee ci yow wax la ko di nga mën a ubbi ubbeeku ba président jot ci euh, ñeneen ñëw nañu euh, ci ñi ñëw ñëpp nag mën naa ci ràññee benn patron de société ba nga xam ne jiite nag euh, kuréel gu mag ci organisation patronale jaar ci benn avocat ni ma daf ma bëgg a gis pour ñu waxtaan ci affaire Ousmane Sonko ak Macky Sall ak réew mi. Euh, avocat bi ko bi ko yebal ci man xam na ma sama xarit la ñàkkul sax am na lu bokkoon dox ci luy jur jàmm ci réew mi moo tax xam naa ni ba mbir mi xewee mu daal ni ko kenn laa yaakaar ni daal boo demee seet ci moom man nañ koo dox ci loolu ni kenn du ko yëg te daañ ci mën a am ndab mu ma ko waxee ma ne ko man de wax dëgg yàlla man naa ko recevoir kooku euh, jox ma rendez daal di mujj fomm rendez ba ni ma dama am lu ma tënk Euh, joxaat ma beneen rendez-vous ma ne ko maa ngi lay xaar ba rendez-vous beneen ba jotee mu woowaat ma ne ma dafa am lu ma tënk ma ne ko kon heure boo paree rek maa ngi lay déglu mujjul ñëw euh, ki nga xamee moom ñëwal na boppam mooy lancé na gañi saaxu euh, mi nga xam ne ni ku ne xam na ne directeur général ONAS la woon àndoon ak Macky Sall waaye beddeeku dem ci Pastef def naa ni que ci jegewaale Ousmane Sonko ko gën a jege la wala ci li ma gis daal xam naa ni am na fa cër wala xejj na ca seen biir. Lansana ñu Sakho ñëw seet si ma bis bi muy ñëw sax euh, daf na ma dafa waroon a ànd ak euh, Bassirou Diomaye fay di toftalu Ousmane Sonko ci parti Pastef euh, mu ne ma Bassirou dafa waroon a ñëw ak moom waaye bi muy ñëw Bassirou daf ko woo ni ko duma mën a ñëw ci rendez-vous bi demal boo paree nga rendre ma compte ndax dafa am yeneen yu ma war a doxi Euh, ma ne ko waaw ma déglu ko mu wax ma ni ma daal ñun jàmm la ñuy wut suñu sañoon euh, jàmm dellusi ci réew mi euh, moo tax ma ni woon daal naa waxtaan ak yow ci loolu ba nu ñu mën a waxee fexe ba Ousmane Sonko ak Macky Sall toog ma ne ko ah, dinaa xool lu ma ci man waaye nag yaakaaruma ni dina yomb ndaxte kat seen waa ji li ma ko dégg mu koy wax ak ni muy taxawee yaakaaruma dina yomb. Euh, mu ni ma bu fekkee sax mën nañoo daje fa nga xamee ni que euh, terrain neutre lay doon euh, mooy gën ma ne quoi man de yebuma président bay dem naan ko da ngay daje kenn citoyen sénégalais tere neutre xel xalaatul loolu bu dee daal daje day am président mooy sànn naka lay doone ak fu muy doon ak fan lay doone ak naka la ak numu te bu ñuy dem bu fekkee day dem day ñëw fi ma dugal sama oto yóbbu ko fa ma président wax ñu tàqale ko ci loolu ma ni ko dinaa waxtaan ak euh, président wala mu waxtaan ak xool lu ma ciy def ma joxaat ko rendez bu mu delsi 1er février 2023 la ñëw seet si ma ma joxaat ko rendez-vous 7 février 2023 di ko balaa boobu du ñàkk ma wax ak président wala ma xool lan laa lay tontu bi mu rendez-vous jotee mu si bi mu si ñu toog ma ne ko waaw seet naa mbir mi waaye dina ma jafe trop ma sori ci mbir mi ndax daal sa waaj ji dalul sama xel euh, te yaakaaruma dina war a mën a nekk te président euh, pour wax ak ka nga xam ne day saaga magistrat yi di saaga police di saaga gendarmerie di saaga armée bi dina ko jafe yebuma président ba di ko wax loolu loolu laa tontu woon lancé na gañu saa xum mbir ma yem foofu kon euh, lii may wëgg a wax ci livre bi rek moo di bari na ña nga xam ne ñëw nañu seet si ma di ma wax naa ne dañoo bëgg a jubale yaakaar naa ne tamit am naa ci firnde bu wër ñooña ba ñuy dem ak lañ doon dox umpuloon Ousmane Sonko sama diggante ak Ousmane Sonko nag euh, bari na lu ñu ciy wax am na ñu nga yaakaar nañ ni dafa am lu dox suñu diggante wala ak bañeel wala euh, ak féewaloo euh, yàlla xam na ne mosuma joteeg moom dara mosuñoo seq dara tamit waaye nag. ni ma gis mu koy doxale wala li ma ko dégg mu koy wax man du bokk ci Sénégalais yi nga xam ne dama koy tànqamlu wala ba noppiwaale ko dama jàpp ni képp ka nga xam ne ni da ngaa bëgg a naxasal démocratie danga ngaa bëgg a naxasal justice da ngaa bëgg a naxasal euh, république du Sénégal lu ma ci man sama kéemtalaay kàttan dinaa toog jaamaarloo ak yow euh, ba loolu bu ma ko mënee fànq dinaa ko fànq loolu nag euh, nëbbu ma ko làqu ma ko dama koy wax ci Euh, euh, publiquement ci ay rajo ci ay télévision di ko bind sama journal di ko doxe di ko waxe kon loolu wax dëgg yàlla umpul kenn euh, li tax ma wax ne nag amul dara dox sama diggante en particulier man naa ko mën naa ci indi ay firnde Ousmane Sonko xamal naa ko lool nii xëy na mbiru boppam la waaye taxul ma man koo utiliser sax wala ma jéem koo utiliser di ko xeexe di ko ko xeexe am na fi ay tolof tolof ay ñoltu ñoltu yi nga xam ne yu tar yu ko boole ak Euh, benn famille bu dëkk Thiaroye euh, famille boobu la leen naqare ci Ousmane Sonko am naa ay vidéo ak ay enregistrement ya nga xaman ni bàyyi xale bu jigéen ba am naa ko ak xale bu jigéen ci ba ci boppam waaye mosuma koo wax musuma koo génne euh, ci Ousmane Sonko ndax dama jàpp ni lu mbirum privé la soxnaam di Anna Diamanka bi nga xamee ni jote naa ak moom ay jamono ba génn kër ga am na ñu ko dalaloon wutal ko fu mu dëkk di ko jàppale Euh, am na ñu ma ci doon sàkku sax ndimbal du benn du ñaar am naa ndimbal yu ma ci yónnee waaye taxut ma nangoo gisanteeg Anna Diamanka jëm nañ maa wax ni ma nañ la organiser nga dajeeg moom xamanteeg moom du ñàkk am na lu mu lay wax ci Ousmane Sonko mais mosuma ko nangoo gis euh, ndax damaa jàpp ni mbirum politique ak mbirum privé bokkul moo tax nangu ma mën a gis Anna Diamanka nangu mën a wax ci Ousmane Sonko ci li nga xam ne ay affaire privée la kon nag wax dëgg yàlla mën naa ni que euh, bu fekkee. jubuma jubluwuma wala man jubluwuma ko tamit euh, dinaa xar sama tànk tubéy wala ma moytu sans bopp dugg ci yenn terrain yi nga xam ne moom xëy na du doon loolu nii mbirum euh, public lay doon mais dugguma ci combat personnel ou combat privé euh, Ousmane Sonko nag bu fekkee léeg-léeg dama koy faral di wax bu dee fekkee am na Sénégal ku ko xam ki ko gën a xam mooy Amadou Ba premier ministre bii bu ñuy fàttaliku Amadou Ba moo nekkoon directeur général des impôts et domaines. booba Ousmane Sonko di jiite syndicat bi euh, bari woon na ñoltu ñoltu ak jàppante ci seen biir euh, mais li Amadou Ba jànkoon ci diggante bi Ousmane Sonko moo di Ousmane Sonko dafa nekk comme ni boo seqee ak moom euh, da nga koy jéem won ni ko daal damay jéem a ko dama lay jéem féete ci ko ndax bu fekkee dem na ba miin la rek ba def la nattango soxlaatu la sa kilifa lay wuti. moo tax Amadou Ba daawul jéem a jaamaarloo Ousmane Sonko da ko doon booleeg muy ñeneen ñu nekk ci syndicat am wala ñeneen yeneen directeurs yu suufee ñooñu di jotee ak moom nga xam ne Amadou Ba moom ma nekkoon directeur général des impôts xëy na Ousmane Sonko du yoon jote ci moom bi mu fa jógee nekk ministre des finances da koo bàyyee woon rek directeur général des impôts et domaines bi ko remplacé woon ba Ousmane Sonko jotul ci moom moo tax dañ daan wax toujours euh, pourquoi euh, Amadou Ba daan xaral di ja di jàmbat naan sax xëy na euh, Ousmane Sonko warta nekk président warta nekk interlocuteur wala warta nekk alter ego mooy motul nekk naataangoom loolu tamit dama daan faral di dégg mu koy wax ci diggante mu Ousmane Sonko waaye euh, bi nga xamee ne jàpp jamono dox na ba euh, amadu Ba nekkoon ministre des finances Ousmane Sonko jamono yooyu lañ ko rajee ci fonction publique euh, Amadou Ba d'accord woon ci radiation bi sax daf ni woon rajoation bi du solution def na faute mën nañ ko sanctionner administrativement waaye jël yeneen mesures yu dul di ko rajee ndax boo ko radier day mel ni dañ ko néewal doole wala day joxe euh, benn impression wala image martyr te da koy dafa yàq dafa njortoon daal dañ koy gën a da koy dooleel. bi wax yooyu sax ñu bari ci nguur gi def na rafetlu wuñ ko woon jàppoon nañ ni Amadou Ba dafa am lu dox diggante ak Ousmane Sonko wala dafa am lu ñuy yëgoo wala lu ñuy baara yëgoo ci seen biir euh, bari dégg naa sax ba tey du benn du ñaar ñu ni. Euh, parti Pastef xëy na Ousmane Sonko ba mu koy taxawal pour Amadou Ba moo tax loolu ñàkkul aussi indil na Amadou Ba ay jafe-jafe ndaxte maa ngi fàttaliku euh, bu amee ñu nekk ci gouvernement bi nga xam ne jote ak ñoom wala doon nañ ko am luñ koy tuumaal wala di ko ci euh, di ko ko reproché dafa naan diggante Ousmane Sonko bokkoon na ci li taxoon nag tuuma li gën a yomb ci Amadou Ba. Euh, wax naa ko ci livre bi Ousmane Sonko bi muy ñaan ñaareelu soxlaam bi a jamanka Amadou Ba moo ko ko ñaanal booba moo nekk directeur général des impôts et domaines bi muy takk soxna si euh, mu invité ci Amadou Ba mu dem ca takk ga ba fa dikkee Amadou Ousmane euh, Sonko mi ngi yebaloon Cheikh Issa Sall magistrat bi nga xam ne moom promotion am ñoo bokkoon promotion ENA donc ENAM la jom jamono yi ñoo nekkoon promotion Cheikh Issa Sall dem di ñaani daje fa ak Ba jox ko cër bi. Euh, daal di ni ko daal nga yaay suñu kilifa yun ñëpp kon nag bu ñu ñëwee dañ lay jox baat bi dafa yàlla sax loolu moo tax ñu ne Amadou Ba ko ñaanal jabar euh, waaye defe naa ci jamono yooyu sax Amadou Ba dafa delloo cër bi imam ba ni ko ñaanal ñaanal ndaxte kat man kii kilifaam laa yaay soxna si kilifaam laa ñoo bokk euh, di liggéey sama service lay liggéey te aussi am na Euh, relation yi nga xam ne am na ko ak euh, famille xale bu jigéen bi donc loolu moo ko yóbboon ca takk ga waaye terewul loolu lu ci bari defe naa ne génnuk Ousmane euh, Amadou Ba génnuk Amadou Ba ci gouvernement bi ay booru deux mille vingt yaakaar naa ni tuuma yi nga xam doon nañ ko tuumaal diggante Ousmane Sonko am na lu bari lu ci joué.